Encore toi. man da sama journée ya ko continue yow lu tax amoo jom. xam nga do génn buntu kër. lu tax ñii di la tuddé ay anniversaire rek ay xumbal bëgguñu sa dara sa xaal sa sax lañu soxla. mu ngi gannaaw li muy dund ci yàlla métti na lool. ba jël nak bu muy dëng. Hmm. mag ñaa nga foon tok way dañoo xulle ba mu dëng seen kanam ñu bokku lijeentu mu taleen. man ni ma la def bo ko defoon dina ma neex dina mën a ma baay. Suma la baay da nga dé. Bo demee wuy juk. boobaa dina la wax luy ñuul ci soow mi. baaba dafa am luy ñuul ci soow bi. kan la sax kan laa waxal Amadou li ma xam ci ay Amadou dafa bari ah Amadou Amadou sama mag. ban Amadou. yow Amadou fan nga nekk te yow sax numéro Sénégal nga may woowee. Amadou. Amadou foo nekk. yaay yaay yaay. allo. waa copine comment tu vas. ça va yaa ga waaye maa ngi nii de bi kay jóg yooyu. vacance laa nekkul non. vacance ba ci lan doomu julli da ngay teel a jóg sang jàpp julli ñaan yàlla mu may la. Money.